le combat bi nga xam ne moom mujjee génn léegi 8e combat bi waa di sama mak Koulibaly 2 Lamine waaw sama Koulibaly 2 lu mangi ci lamb borom bis bu rëy bi ñëw na daal bu soba yalla man yaakaaru bo la yaakaaru ciaré la man may borom ñaari dëkk yi di sal suma ay gir ñëp nak sen talé Poste numéro 2 numéro 1 Tapha tim maa ngay sant bu baax ba Abdou Fall Père Ngom Baba tal maa ngay bu baax baax baax di sal sama papa jël ma directeur Lamine Mohamed Tel Couture ci nee na. isa sama papa sama nijaay Alla Gueye di ko rendu hommage di ñaanal yàlla na ko yàlla xara àjjana di ko ñaanal ak njaboot yëpp yàlla yàlla muñ di wax combat barke alxuraan moom laa ko doon bëreel doo bëree doo dama doon ñaanal ma islam barke Sina loolu moo métti lim na sama njëriñ ñu ko doon fekkee loolu moo métti barke Sina ñaata combat bi mu nekkoon sama deuxième combat ñaata victoire onze stop Lamine damaa raam combat dara combat Talfa Youssou Ndour Balla Gaye di laaj mbay bu mbay bu du moromam mbay bu bëre Pam Doy wax na su ma daanee mu may ma saas dañoo may ma saas barke alxuraan dem Talfa Pam Doy Youssou Ndour Youssou Ndour Balla Gaye jeex na tàkk dégg nañu di sant waa Bawol nag bu baax a baax a baax di sant waa Bawol yëpp su ma limee may juum di sant waa Caare di sant sama yëpp ñëpp ñëpp di sant ñi ma jàpp ñëpp di nuyu sant sama gaay maanaam sama jarbaat Joona fajar fajar sax sulama la may jëw le bi kala ko mba bi waaye waaw combat bi teg nañ ko sanka ma nga ñëw tegaguma ko seetaan ko ko Mohamed tegal ko ko bude mu ngi bax mohammed indi ñu bi ci combat bi waaw mais temps bi nak bu fekkee mu ko tay rek da ngay muñ Pierre ma ngi sant ñep di sant waa Diaré di sant parce que le Sa kies bi di jël president bi ko su melne sama père Mbanga ak Amad Ngom ma ngi ñu di sant sama malga ko di sant fa Ndiane nak abdourahman ma ngi sant bu baax baax jàll na si combat bi baax a baax baax baax baax di sant ci bu jabe Sa kies maa lay sant. jërëjëf taxawaay. waaw tegal ma ko waaye ma seetaan ko. di sant sama papa bu baax sama yaay di sant sama tante bu baax a baax di sant sama mbokku ñëpp waa Thiaré ñëpp maa ngi sant bu baax a baax a baax. billahi. waaw xam nga ñii ma ma leen doole maa ngi dàq maa ngi dàq bëre. barki alxuraanu karim maa ngi dàq bëre foofu xam naa ne mën naa ko daan waaye ma koy téye ba xam ne maa ko doole doo ko daan barki Seydina di sant Brise de Mer nag combat bi ñëw yàlla ko yàlla may ndam na wax na préparé nag combat bi suñu combat la. wala wala ñàkk Brise de Mer. war bëgg nañ ci yow. waaw xaaral combat bi jeex. Mohamed bu gaawee neex. Lamine lii waxoon naa la ko de. daanaan noonu man. nga maa naanaan nga naanaan jërëjëf Assane asal nga noonu borom global textile waaw Lamine doomu ndey ndemi si yàlla Ramdan Lamine kii toog yàlla ko yàlla yërëm di koo xam ne dimanche bu global textile solal kon nag bu ñëwee tey fekk ma fii ci plateau bi mi ni global textile toj réew mi moo ma solal lii ma sol kon maa ngi lay nuyu bu baax di la ndokkeel Assane Fall jërëjëf di wax ne Assane Assane dundal dund doyul Assane asalaamaaleykum waaleykum salaam père waaw maa ngi nuyu maa ngi nuyu Lamine di nuyu amul lamb yëpp TV di Lutte TV Lamine Lutte TV xam njëriñam barke alxuraan ba doo wéet parce que dafay dundaat làmb boo génnee nekk Europe wala nga nekk ay si nga doon gën a xam njëriñu nit ñi kon di jaajëfal kañ yi nga xam ne moom moo ñu tuddee drapeau xool ñoo duggee du drapeau pour ñu mën a bokk si yenn seen yi nga xam ne dañuy a takk suñu ndig gën a góorgóorlu liggéey di ñaan classe kañ yi ñeneen ñeneen ñoo xam ngi yëngu ci wàllu làmb état bi gën leen a may doole gën leen a jàppale sponsor yi a daw si ñëw parce que làmb day soxla sponsor uh-huh. culture Sénégal la ñu am muy làmb man li may ñàkk ñàkk ñàkk taxan naa si làmb kon maanaam ñi nga xam ne ñu organisé làmb ñu amuñ seen fay di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci wàllu làmb père yow sama père nga yow Lamine boole na maa yow mais dama lay topp si Lamine <laughs> waaw di gërëm sama waajur bu góor di gërëm sama waajur bu jigéen ah di gërëm sama waajur bu góor bu dakk ah, jigéen ñoo ko ñëw sat kon loolu combat bu garaaw a ngi nii waaw bu garaaw a ngi nii ko jëw arbi si leen na combat bi ndeysaan ñàkk jëriñ caatu yow combat bi dàqu combat bi dàqu la ci ànd door ko ci dàqu ma ci ñaari pied droite. da ñaari pied droite lañ. dàquma ci tamit kuy dóor ñu jiwaat loog yow jël waaye dàquma ci quatre waaye Lamine am na ci koo xam ne na moytu kaawoo. waaw am na koo xam ne na moytu ñu dóor ko tepa eh, mu gaañu. waaw waaye am na ci koo xam ne na moytu ñu dóori ñu jiwaat loog moom remplacé ko. Lamine combat bi kenn ki ñaari mbër yaa ngi noonu ñàkk jëriñu ak caatu yoof day dem ah, waaw caatu yoof day dem. waaye day. ay boo xamul na ngay deme ñàkk jariñu mii. ñàkk jariñu caatu yow xoolal xoolal na muy def tànk ya coppat lay def tànk. am ñaar ñi ngi lewtoo. waaye ci caatu yow. kenn du moom. yow la jógee ci defet la jógee. waaw. diggante ak Tyson 2 waaw. nekkoon le 19 mars. ñàkk jariñu. 2023. ñàkk jariñu jógee ci defet le 25 décembre 2022 diggante ak Jackson diggante ak Jackson bu Guédiawaye ñom ñaar kon combat yeeram yërëmtalu la. wala combat yërmande. ndeysaan. ñaari mbër yaa ngi lee waatoo ba léegi. maa ngi nuyu Modou fay ca mairie pou ken west waaw noonu la demee. sama rakku ju bax joju mais Lamine. waaw taatu yow bu loxo bi jugee ñàkk a jaruñ tànk yi la jëm. ah dinañu xeex de. ndeysaan sa nga ne pay dinañu xeex de dina ha ha dinañu xeex de. dal na ko dal na ko korno ko. oh oh. Ah, Ardo. Ardo waaw. Ardo. ah waxoon naa ko de. waxoon na ko de. waxoon na ko de. waxoon naa ko. waxoon naa leen ko de. waxoon ko de. munu cee ñàkk bay paala. <laughs> ne woon naa leen dina am ku dem Ardo. ne woon naa leen kaw mën na jam. nee naa leen mën nañoo dóor nit RK bi teppeeku. xoolal di mun a suuf. sëlëm ko waaw loolu loolu loolu jàmbaar la Assane sa kàddu gu mujj. waaw dem kontaane di gërëm ñi nga xam ne ñoo lay àndal. ñu ne Zal si na kat Sidi Bara. Fallou ah. ma jërëjëf Jaadu yow yàq dem na Ardo am kontaan baax ahlu làmb tey dañoo ñëw gunge ma mu ma ak kullu nga xam ne yaa ngi liggéey si làmb képp nga xam ne yaa ngi yor caméra yor micro gis naa seen taxawaay aw ma seen fay su ma libee juum di jaajëfal ñëpp di sant sama waa ji bu góor nag waaw di ko sant bu baax a baax ndax koo xam ne xamul xamul làmb du ñëw du gis lu làmb kurus la xam ak julli tey moo ko dagg itam loolu. seetlu naa heure bu ñu la tuddee làmb mu ñëw. wallahi azim xam nga loolu dafa rëy si man day man damay dem damay am kersa parce que alxuraan ka parce du génn du dem ay événement yii nii kon bu a ba gunge ba mu ngi gunge doom di ñaanal képp waaju bokk. ah ju bokk sa wayjur rek. non billahi dama amul fayam. mais réew mi yëpp nee nañ li ma solal dafa rafet. yow père yaa ko moom yaa moom yaa moom xam nga xam nga xam nga àdduna àdduna boo nekkee si yoon dafa métti nga doon ndaw ku mel ni suñ classe yi dana boo nekkee si wàllu làmb wala nga nekk jaxasoog artiste yi wala nga dañ naan mu ngi yàq mu ngi sànku te artiste ay nit leen rek nitu làmb yi ay nit leen rek comme doomu aadama parce que ñoom ñoo ñu mën a jàppale si liggéey bi ñu gën ñoo dégg tey ji bu doon bu doon dama jaxasoo nitu laa wala ma jaxasoo nitu nitu artiste yooyu kon heure bi maanaam non mënut a ñàkk waaw mënut a ñàkk mënut a ñàkk parce que nit ñi day garabam kon dañuy jaajëfal di sant mënul ñàkk moo tax maa ngi gërëm bu baax baax bu dee kaa waaw la

bu kii dóorit oh. na sóoraale ñu jiwaat loog moom song ko akay gaynde gaynde nag ñax nag bu ma ko dee conseillé tey du ko conseillé mu xeex déedéet lu ma koy conseillé dafal écran sa kanamu woo ko ci liggéey bu bu moom dem waaye ay jot na loxo bi diis ne te tax ko njaay di de jublu woon na combat bi diggante ñax Caatu Caatu Yoff moom ak Ndiaye Tine le 4 février le combat bu garaaw ngi mu toll bind bi to ëpp na noonu ñoom ñaar ñu ngi leetoo ñu ngi leewaatoo ñax jariñu moo ñu woon ginnaaw Caatu Yoff wàcc na ba tolloog ñax Caatu Yoff lañ jaakaar lool dam na ci ardo bi ñu waat moom ñax jariñu door na ku ndeysaan ñu ngi leetoo ñoom ñaar door na ko Caatu Yoff ñax jariñu Caatu Yoff ñax jariñu ñu ngi leewaatoo ba léegi ñoom ñaar ku nekk teg pied droit ñax eh! door na ko jël na ko dana ko daanu dana ko daanu na li mu ko teg ko teg antanu ko daan ko Caatu Yoff daan na ko antanu ko la ko ku ko may mu xalaat mu teg la ko lamin ko bàyyi xel moom Caatu Yoff la yóbbu ko a ku ko mbaa ñu am na nee naa woon la. da koo doon ci wàllu yóoru am na woytu ñu dóor ko mu dem jaarloo. nee naa la ku ko may mu xaar mu dem mais ñàkk jariñu ñàkk jariñu lu ko waaj a teg antanu ko. Oh. déedéet kuy bëri moom na ko bàyyi xel. ndeysaan nañ ko bàyyi xel. waaw. da na ko jël bu rëy la mi. daan na ko war a ñëw.